Thank you. Aliou baax jërë ngeen jëf Yacine Pouy internautes yeeg auditeurs yi bàyyi seen xel ci RFM 94 point 0 wala 94 point 3 ngi leen di kontaane bu baax yéen a ngi seen journal des faits divers xalaas ànd ceeg passe partout ak sunu ay partenaires passe ngi lay kontaane l'homme fort du régime maa nuyu bu baax baax di la ziar. mbaa mu ngi dox. ñu ngi sant bu baax baax. lépp jàmm. di la nuyu bu baax di nuyu suñu auditeurs yi internet yi waa 94 point 3 maa ngi di ziar. Mhm. xam naa heure bi ñu ngi si tali bi. di nuyu internet di ziar ñëpp. Euh, ñu ñuy déglu ci réew mi ak bitim réew di la ñaanal jàmm bu baax baax. di bëgg ci partenaires yi nga xam ne ñoom la ñu àndal euh, bokk na ci euh, li nga xam ne moom mooy optique Vision Plus Sénégal. optique Vision Plus Sénégal lunette partout et pour tous. da mhm. ko Ndiaye di waxee. Mhm. borom vue de près ak vue de loin yi waaw démb lañ doon clôturer seen euh, journée médicale gratuite fële ca Tivaouane def fa liggéey bu am solo ànd yoon ceeg ak euh, association de lunetiers bu France ak euh, waa xadratul Malikia def ay journée médicale yu ama am solo waaye noonu lañ koy defee ci këru diina yëpp. chaque magal gamu fep dañuy dem Kaolack dañuy dem euh ci Yoof dañuy dem Njaasaan fep dañu fay dem. lepp li actualité daal ñoom bu amee ñoom dañ ci dugg. maa sap dugg ci événementiel waaye dañ gi def ay promotion yu yu yu. amul fenn wax hmm. ay promotion yu am solo am solo euh mi yon mi yoon moy téléphone bu baax bi téléphone bu wóor bi gisugo ko dégguma sa waji nak de. day ñew ah. am na ku ma lay booleel. ne ko ne ko ba mu ma joxoon oto jaar na waaw indil la yoon bu saf sàpp. ko dër nga ci bopp yooyu tamit. baax a baax. téléphone ma joxoon waaw waaw. ma joxoon. da ngay waaw day ñëwaat. mooy suñu gars yi. Mhm. ñoom ñoom ñoom birum xuma ñeen ziar bu baax a baax. Mhm, mhm, waaye bokk na ci LPM. LPM librairie papeterie Mohamed borom 400 gàmmu produit yi nga xam yëpp ci école la jëm abaatee la école bi. Euh, école ubbi na bul wax tayal école da nga école ubbi na. école ubbi na waaw ah, ñu ngi ci 9h37 euh, minutes. école ubbi na tey ñuy ñaanal élèves yëpp. Euh, ubbi teg jàmm ah ubbi tey jàng tey yal na doon. <laughs> loolu moom mënul nekk moom ci yenn école yi am na école yoo xam ne ubbi tey toog jàng tey mënu faa nekk. am na école yoo xam ne ba tey dafa am ndox. waaw waaw xam nga am na école yoo xam ne ba tey bu ñu dindee euh, ndox mi am na fa yenn yoo xam ne xale yi mënuñoo jàng. Mhm. table banc yi yëpp yàqu na. donc condition yi quoi. donc nañu dimbali xale yi ci école yi ba pare éducation dafa am solo lool lool lool na ñu dimbali xale yi ci école yi. ñu defaraat école yu bëree bëri ubbi tey moom di jàng tey xanaa du école yëpp lay nekk de tuuti école ko mën de. ah nañ ci farlu bokk. nañ ci farlu waaw waaw waaw ubbi tey ne jàng tey daal di reetaan lan sa xel bi lu non non dara wallaay dara dara hmm. dara nañ bàyyi message éphémère yi euh, maître Anta maa ngi koy ziar Anta jotoon na ma envoyé ay audio ci li ñu doon waxtaane noonu keroog garaaw waaye daal garaaw da damaa xëy nekkate vingt quatre heures la message éphémère message yëpp dem ah, boo ko ubbiwul ba vingt quatre heures yi jot day dem ñooñu ay kilifa rek day dem message yaa ne muy message yàgg xalaas bu njëkk madame lii leg aba bala ñu dem ci madam li fu ñu jëm euh, keroog énoon nañ fi yaangi ngi doon fàttaliku accident boobu xewon ci Tamba té mu amoon 9 morts yi hmm bus ba ak sept place ba hmm ñu ngi ñuy xamal ni borom auto ba condamné nañ ko 6 mois ferme ko tej wa ba pare suspendre permis moom 1 an ñu dawal wa mom borom borom bus bi accident bu bu yéme won la way am na tamit beneen fee bu fi xewoon euh, fii ci jëpp rue treize xam naa ne yaa ngi noo gis vidéo bi benn chauffeur tata bu yore ligne deux bi dawal ba ci yàgg rek mu mbëkk benn taxi. Mhm. ñu gis ko mu am benn melokaan bu xaw a doy waar. kan chauffeur tata bi ci dawal waaw ba gars yi filmé ko ñu naan daa màndi ba mënul taxaw waa ji màndiwul hmm. waa ji dafa feebar. ok wax hypoglycémie. mooy loolu diabétique yi xam nañ ko. Ah. waa ji dafa crise ok ok yooyu souvent boo boo boo xiifee la la lay dal su ma juumul waa ji daa crise léegi nag ki ko doon filmer nag moo ko filmer di wax ci vidéo naan waa ji mi ngi nii màndi bu mënul taxaw. waa ji màndiwul. gëstu nañ ko effectivement waaj ji màndiwul. Euh, Modou Ndiaye aussi bu TFM. li xew ci internet def na ci gëstu bu am solo. Mhm. ba def na ci dem benn benn benn taxaw seetlu waa ji mandiwul mandiwaale loolu lañ defoon comme maire bi ñu defoon naan dëmm la ak dëmm la. ba xale bu jigéen bi waaw ba benn xale bu jigéen di filmé naan xool leen loxo yi xool leen baaraam yi am ci benn espèce de journaliste bu bu dëgër fit dem taxaw foofu naan yóbbu nañ ko dalal jàmm ba naaw na bàyyi fa yëre yi te boobu maire mi ab daal bu mbaaw. ah mu ne dañ ko yóbbu dalal jàmm mu naaw. waaw nañu nañuy moytu yenn yi. waaw ah, ñun ci réew moom la nekk. Ah, waaw ñun ci réew yenn yi la nekk donc yenn yi mun ñu ko moytu. ñaaw ñaaw na lool ci réew moo xam dañuy teg ay groupe wooye ko ay groupe bu kaa. kon <laughs> moom yii mun fee ñàkk <laughs> eh, mbaxu yii mooy neexal ba neexul mais yii moo koy neexal ma taxaw wala ma dem comme nañuy wax rek ñoom ñuy weddi mais <laughs> réew mi yee koy neexal de ay ca la neexal dem eggal ci ci li ñu nekkoon démb mhm. mooy ci kaaw yëmbal bi mhm. euh, commissaire Lat Dior Fall euh, ñu koy ziar la Lat Joor Fall la tudd. Mhm. la Joor waaw. loolooy turam. noonu la tudd. mu gërëyee. Lat Joor Fall noonu la tudd moo tax mu gërëyee. waaw ñu koy ziar baax a baax dafa am benn ku ma woo démb wax ma ci benn benn lu am solo. Mhm. bi ñuy wax ci question moyen question oto yooyu. nee wax ma waxuma sax commissariat mais gis nga souvent police arrondissement yi ñuy wax ay police municipale yu si bëri am na yoo xam ne seen oto yi instant bi nii gaare na mu ne ma pourquoi pas assemblée nationale par exemple ni ñu génnee quatorzième législature. Mhm. député yi boo leen compté war na mat ay cent quelque. bu seen mandat jeexee oto yi ñu leen joxoon dañ leen koy may kuñ ci falaat joxaat la oto bu bees. donc ce qui veut dire que yow ñaari mandat bu ci ne am nga ci oto. autant oto yooyu nga xam dañ leen koy may na ko jël ko tasaare ci commissariat ak ci gendarmerie yi. ah ko wax de loolu ay waxi Sonko la de man seetaan naa Sonko wax ko de. seetaan naa Sonko mu ne moom oto bi ñu ko jox ak passeport diplomate bi sax da koy delloo. waaw da koy delloo dëggantaan. ah Sonko lii. Ah. lii ni dama woo dem wax ma ko. Sonko wax na ko de. ah Sonko wax bu ko waxee d'accord naa ci. ah wax na bii moom. non mais parce que Aba. Ah. douane yi nag ci frontière yi ah. Euh, euh, caserne yi temps yi gis naa ne am na ay changement parce que euh, sapeur yi ñu jox ay moto bu ñu demee yenn intervention circulation beeg yooyu mais commissariat yi gendarmerie yi douane yi frontières yi nañ leen di jox ay ay moyens yoo xamante ni dëgg la waaw dëgg la de yi ñu liggéey de di leen dimbali waaw dañ leen di dimbali rek quoi dañ leen dimbali seen yëf gën a yomb rek gën a yomb dépassement ñu yomb yombalee seen yëf rek ñun suñu sécurité ak insécurité nga xam ne ci la ñu nekk hmm. wax dëgg yàlla dinañ ko wàññi bu baax a baax parce que ñoom nekk ñu fi lu dul pour ñun di ñu aar ñun donc ñoom nañ leen mettre les moyens rek leen ko jox ñu gën ñoo mën a aar classe bi njëkk kon mën nañ cee dem fi ñu toll nii ayca ayca ah, kii jàngalekat la Abba hmm. euh, Fatmata Ibrahima lii la tudd dafa jóge Fuuta doon néew dakaar dara jot ko nag xale bu jigéen la dafay jàngale ñëw na ba cees wàcc na cees ci benn ku mu gisanteel foofu daal kooku nag nee na bi mu ko gisee dafa xaw a mel ni ku taxal ko sagoom ba mu laaj ko numéro ay mbokkam ñu woo ay mbokkam yi nekk Thiès ñu ne ñu ngi koy jël diggante boobu nag xale bu jigéen bi sey na bàyyi na fa saak à meewam bàyyi na fa ay téléphone dem na. fu mu dem le 19 ba tey ay mbokkam ñu ngi koy wër. nañ déglu kii frère mu si mel confrère déglu. suñu rakk suñu doom suñ jarbaal bu tudd Farmata Ibrahima Ly moo jógee dëkk bu ñu tudd Dumga Wuro alfa lundi 19 septembre ci département de Matam Dakar la doon dem dafa ñëw ba ay côté Thiès ay côté Thiès foofu la wàcc mu wàcce nag am na benn euh, borom tool bu ma daje foofu kooku nag ñëw si moom di waxtaan ak moom kooku nag comprendre dafa mel na kuréel dafa mel na kuréel mais bu mu doon jógee dëkk ba dum nga wër alpha wane benn signe benn mbalda mandaagar boo xam ne dafa feebar walla xel bi dafa kii Ah, ko waxtaan ak moom ba pare après kooku laaj ko numéro waajuram mu jox ko numéro papam ñu oo papam waxtaan ak papa bi papa bi jox waa ji numéro eh, ay mbokkam yu nekk Thiès ñi oo ñooñu léegi ñooñu ne ñu ngi ñëw le temps di ñu ñoo ñooñ di ñëw la jeune dame Farmata Ibrahima li mu ne waa ji maa ngi dem tuuru ndox ñëwaat mu bàyyi foofu saak aame am saak aame bi téléphone bi mu ngi si ak kartam d'identité léegi nag boobu la dem bu mu demee ba léegi ñëwaatul gisuñ ko depuis lool ñu koy wër ñu ngi koy wër te dafa ñuul xaw a sew tuuti un mètre à peu un mètre soixante cinq bu mu buñ ko gëjee gis benn molfa la yoroon molfa bu la am ay tupp-tupp yu weex moom nag kat la maatam la doon jàngale donc euh, institutrice la la doon jàngale école foofu si maatam euh, Dakar la doon dem depuis loolu nag euh, gisuñ ko def nañ ci ay communiqué wax dem nañ fu ne zone Thiès bi ay Pout ay cinquante ak yeneen déggoon nañ ay ñu ne gis nañ ko côté Touba am nañu wax gis nañ ko côté Fatick depuis loolu daal ñu ngi war a mi gisuñ ko ñu ngi ñaan mbokk senegaal bu ku gis ku ko gis wala ku dégg ku dégg lu mel noonu nañu oo wala oote RFM mi ngi noonu Fatoumata Ibrahima Ly ñu ngi ñaan daal ay ku ko gis mu dimbali wa këram. waaw na dimbali waa këram nañu contacter ci 77 150 17 17 wala nga contacter frère am bii nga xamante ne moom mooy Ousmane Ly di suñu confrère euh, numéro am joxoon na mu ko voilà euh, Ousmane Ly mën nañ ko contacter ci 77 563 43 00. loo doon def léegi da nga doon souhaité joyeux anniversaire Abba. waaw. ok. maa ngi ko doon souhaité madame Keita Fanta Kanté. Fanta Kanté mais di souhaité waale un bon anniversaire à Aïda Pël Aïda Pël mu Mame Mbaye Niang da këf de mais di souhaité waale un bon anniversaire à Alaaji Assane Gueye directeur suñu directeur waaw dañ eh, ko ñaanal gudd fan ak wér moom moom euh, suñu xarit la eh. euh, suñu mag la suñu nijaay la suñu kilifa la nit ku ah, njiit la nit ku mat njiit la waaw ah, mat da place de dirigeant waaw waaw mm. ah. kon na xam nga kalaa souhaité joyeux anniversaire waaw damay dem Texas koy souhaité ti Texas. waaw waaw damay dem souhaité joyeux anniversaire aji aji Awa Diop madame Niass. <laughs> waaw moom temps ay Ohio ay Cincinnati dama fa bëri ay kii. Eh. mais aji Awa Diop moom. madame Niass moom mooy borom xalaas. waaw moom bañ a foofu aji xalaas lañ koy wooyee. aji xalaas. waaw ah la ah, moom euh, ñu ngi koy siyaar di ko souhaité joyeux anniversaire di ko lu bari. Mhm. no stress. dem euh, ci ma nuyu fa Afia ma ko nuyoo ah naa nuyul yow. nuyul ko sa soxna. nuyu ko sama bop nuyu ko sama soxna mais dama koy nuyu laaleel Yacine Pouy mee toog Afia gay Afia gay ay cheveux naturels yu doy war Afia koy jay ziar nañu ba nga Chicago donc Afia suma ko nuyo euh buñu paré jël vidéo bi envoyé ko Afia dina xam ne ñun nuyu nañ ko manet ma ngi remercier xalé bu jong ma la Afia gay mi meuna jay jaay cheveux ma ah, la la ok ma ngi remercier di encourager mhm. plateforme xibir xol abaa ñu def si gàmmu gi. Eh, gisoo daf ko Medina Baye daf ko Tivaouane. <laughs> non franchement PDG Anas Diame. waaw Yacine li muy def ci suuf li kenn yëgul bu ko waree woon ci kaw àdduna ñëpp daw topp ko. mais lu baax da nga koy da nga koy fësal ma de non chef bi lu mu wax waaw. waa ji doom lay seet moom tamit mais affaire bi daf ci am loo xam ne dafa man dafa ma xaw a tikkeloo yaa ngi dégg doom ji dafa jógee Sénégal dem Maroc mi ngi tudd El Bachir Guèye suma jomul nek Maroc difa liggey ba 31 décembre 31 décembre mu wax papa di téléphone ba ci yag ne ko xaaral ma jënd ndox momit fa la ko gëdi dégg ba fi may wax ak yow. Hmm? mais nak booy bi bàyyi woon na ben vocal. wax di yónnee ko ben copain copain bi yónnee ko papa di lan la ci wax da ngay déglu papa di ba pare ab jox la booy bi. man daal euh, sama problème moom mooy sama doom depuis le 31 décembre la ko gis ba léegi Maroc Tanger la nekkoon moom ak nijaayam ñoom ñoo fa nekkoon mais dëkkul woon ak nijaayam nijaayam da ko tolloon benn chambre moom ak yeneen booy beneen booy la bokk lool nekk bon 31 décembre bon dafa reer bi muy reer boobu ñu waxtaan au téléphone te par la suite bon mu ne ma papa ma dem jëndi ndox ci boutique bi ma ne fa ah, d'accord bi mu demee jëndi ndox après dégaatuñu dégaatu ma ko maa ngi ko doon osa waaye jotu ma ko moom aussi bon xam naa certainement bon période boobu noonu ko affaire bi arrivé parce que bon copain bi nee na dafa dafa ñëw jënd ndox ñëw naan ba pare jël ceinturam di ko dóor ci mur bi après copain bi daal ñëw daal ko jàpp mu ne ko damaa xiif mu yóbbu ci benn restaurant foofu ko yóbboo ci restaurant bi nag mu oon yaayam bi ñu fekk ko mu dem moom ñu laaj borom restaurant bi ñu ne porte bi ñu la jaar waa ji woon ko tali bi mu jàll bi mu jër daal bon bi ñuy dem ci yoon bi jaget bi mu soloon ñu for ko ak t bi mu soloon ak daal yi aussi ce qui veut dire que bi muy dem àndul ak sagoom am naa certainement bon jotul boobu léegi daal kenn gisu ko kenn xamul ci lan la nekk vraiment bëggoon naa daal ngeen euh, ngeen jàppale ma ci comme ça ñu euh, ma xool naa la ñuy def daal pour ko retrouver mosul am problème mu xel moom El Bachir Camara la tudd yaayam mi ngi tudd Fatou Bintou Fall man maa ngi tudd Papa Sall Khalil Camara man d'après bon ni nga sa ni nga analyser kii euh, audio bi mooy bon dafa bëgg tekki daal te bon yàlla may ko yenn yenn moyens dégg nga waaw mm-hmm. papa ji neen dafa bëgg a tekki te yàlla may ko yenn moyens yi. Mm-hmm. effectivement. nee na feebarul dara jotu ko. waaw mais man na bi ma déglu ojo bi audio bi audio bu gudd la mais dama ci dagg quelques extraits rek quoi. Mm-hmm. pour ñu déglu ko ñu analyser ndoo ko ñun aussi. parce que tamit yenn yi aussi nit ki xel mën na koo mën mën na koo dégg. ñu déglu booy bi. الله يريد لهم ترازر ودي الجنة ما يقرأ الله اليوم سبب هو يديك إن شاء الله ما يقرأ أبي نجدك أبي بابا نمتك മൽമാർ മൽമാർ ഇതിൽ പിള്ളേ നമുക്ക് എപ്പോ കണ്ടാവുകയാണ് ഇതാണ് ലക്ഷായി പ്രാവശ്യം chaque jour si laay nekk du woon nelaw guddi mais lépp maa ngi koy bind sama benn note te projet bi léegi lépp di ngeen ci gis seen bopp loo xamante ne lu privé lay doon parce que dinaa bëri ay employé ñu ma dara fay te ñëpp si xaalis bu law laa la ñuy fayee incha allah rabbi sama mébét dama ñëw fii nii Maroc sama papa Insa mi ngi nii âge deux ans moo ci wees du mun dem ba te man ñett mébét laa am sama yaay lekk sama xaalis Mori bakul di Joko melek kulit cendek bilal oh kok sebelum dapat mit babi sebelum dapat mit dapat mit sekarang ya lah sabar saja lagi buku buku lagi terus sama ya lagu ulang oleh tapi rasanya tidak usah tidak بالبوا كشي دفع بالبية بلدو بالبوا بالبوا كمان تدي سامبا بدل بيك سمان يو دينغ بيك سماي فامي نيا بدل بيك سمان دماي مارك أم سما أم فرنت سيدك بي masuk anaknya tering mamet lu mandang sampai rasa sampai lu mungkin ada telekut sama kain bakum tembak kuliah eh. di nga ma di ma dimbalaat ci benn affaire hmm. mooy nga leeralaat ma li mu doon wax ndax euh, voix bi peut da nga ko bëgg suturaal mais. Mm. da ko laal bu baax. waaw booy bi dafa ne. Mm-hmm. moom dafa bëgg a tekki te dina tekki. Mm-hmm. te dafa am lu ko gën a métti ci àddunaam mooy li yaayam génn àdduna te lekkul ci alal boo xam moom moo ko liggéey. mu tourné waat ne papaam deux ans moo ko dese du mën damati màkk mm. te moom bu sañoon xëy na liggéey bu yóbbu papaam màkk. wax na yu bare bare bare bare bare bare man nag bon xëy na li nga xamante ne xalaat naa ko mu concerné ma man mënu ma ko wax ci antenne lu tax bon bon pour plusieurs raisons hein. parce que décembre ba léegi ak Maroc papa ji nee naa ko est-ce que gëstu nga ndax booy bi jëlul ci gaal yi papa ji nee na ma xëy na moom jàpp na ne booy bi jëlul gaal yi te pourtant wër nañu Maroc fépp hôpitaux yi police yi fu nekk moom nee dem nañ fa. te kenn gisu ko te gisuñu ko. man aussi ci link yi nga xam ne am naa ko Maroc yónnee naa photo booy bi laaj leen mais sérieusement awma ci retour yoo xam ne man neex na ma. Hmm? te bugguma tamit décourager bon du lu concret en fait. mais naan la non yii bu amee depuis boobu léegi rek jàppal jël na hmm. gaal gi wala yu demee noonu. Hmm. mën na jël gaal gi mën na egg mën na dem ñu jàpp ñu tëj leen ci camp yi wala affaire demee noonu lépp mën na nekk mais lu ci mënti am daal mooy. booy bi dafa taxaw taxawaay moom tekki à tout prix am na si yu bëri yoo xam ne dama ko dindi ci ci ci audio bi bon yoo xam ne xëy na wax na ko sax mais euh, dama ko dindi boo ko déggee nag nga xam ne pression sociale moo ko jàpp pression sociale dëgg dëgg dëgg dëgg moo ko jàpp. mais passe-partout moo dal ñëpp de. moo jàpp ñëpp gis nga tey jii. Hmm. ku ci nekk ci ñun bu doon euh, li nga xam ni moom nga souhaité yow mooy nga nekk ci ay situation yoo xam ne waxuma papa ak yaay wala sa ay mbokk ak sa ay xar mi da ngay dimbali ñëpp ñi nga xam ni yaakaar nañ ko ci yow. Mm-hmm. mais du chaque fois li nga bëgg mooy am. chaque fois li nga bëgg la yàlla def. yàlla amul ci ñun ñëpp kenn complexe. Mm-hmm. li ko neex lay xool di ko def donc ñun il faut ñu yegg foofu tamit ñu naa ah, il faut ñu yegg parce que ma gis Pape Sidi Fall def benn interview. Mm-hmm. dem seeti ku gëm yàlla. Hmm. ba néew bi. waaw parce que hmm. dafa seeti exemple la. gis nga hmm. kooku ah euh, exemple la ci réew mi man dama ko seetaan sama yaram daw xam nga euh, nit foofu la imaan yem. fa la gëm yàlla yem mooy nga nangu li nga xam ni moom la yàlla. def moom la yàlla teg ci yi ñuy ëpp yi ñu war a wane. mooy genre exemple yu mel nii parce néew bi sensibiliser na. booy yi doon complexe def yenn métiers yu bari. néew bi il a été star réew mi. Hmm. nit ñi bëgg nañ ko toppoon nañ ko doon ko déglu xoolal néew bi fi nga xam ni fa la nekk ba pare euh, Pape Sidi di ko interviewé ne ko nit ñi ndax buñ la gisee fii duñ la xeeb mu ne ko ndax ñiy def lii man maa leen gën c'est ay wax la yoo xam ni euh, dañ ko war di bàyyi xel bu baax a baax a baax. Pape Sidi maa ngi koy félicité. Hmm. maa ngi félicité néew bi di ko encouragé tamit bu baax a baax a baax a baax. est-ce xam nga Abba. tey jii ne émission boobu Pape Sidy Fall def bu jugoon dem seeti beneen star boo xam te ne instant bii nii mi ngi nekk au top kooku moom mooy ëpp li ko nit ñi di di di seetaan wala ñu koy déglu que par rapport ak néew bi. non néew bi seetaan pourtant non en fait waxin la. waaw et pourtant li néew bi wax man dama jàpp ni moo gën a ëpp solo que par rapport ak leneen xamul tax ki dem ba jàpp ne moom mi ngi au sommet moom mi moom jàpp na mi ngi au néew bi demoon na bu au sommet. Mm-hmm. jékki-jékki laa fam changé waat. mu jël ko nangu ko ak philosophie di ko dund gérer ko di ko dund mhm. amu ci benn complexe rusu ji mhm. mhm. pourtant moo nuru toog ci télé bi di di wax am na xam te instant bi ñu ngi dund loo xamante ni sa waay seen ngor mayu leen ñu ne man dama daan feeñ télé wala dama daan ne ko star foo ma damaa télé bi toog wax li may dund moo tax gis passe partout ay changé wala ay succès moo war moo warul kenn ñun wóoruñu ndax fi ñu toog nii ren bu déwénee ñun fan la ñu fekk xam nga loolu kenn xamu ko. mën ngaa dem fii dem dem dem wàcc. del del te la nga newoon kenn da koo xamul. cest à moo tax c'est gis nga yàlla. Mhm. nañu yàlla dimbali ñu ñu ñu ñu ñuy am grandeur nañu yàlla dimbali ñuy nekk fi ñu nekk. Mhm. dara ban ñoo dépassé. nañu yàlla dimbali ñu woyof simple bañ dara ban ñoo fëkk. moo c'est très la dara. Mhm. gis nga moo tax nit nañ ko tàggat bu la tàggatul nga tàggat sa bopp xamul tax fépp foo mënti egg ci sa dund. da ngay jàpp ne yow yaa ngi fa nga newoon ba tey gis nga tey Aba bu fekkente ne dañoo ñëw gis Aba mu nekk rek di dawal oto yi rafet Aba di dem di tukki di dem di ñëw man mi nga xam te ne juguguma mu jug damaa bëgg mel ni Aba wala damaa bëgg toll fi abaa tool rey naa sam bopp. faaw nga aw sax laay def xam nga le problème mooy bu ñu la waxee neen Aba daan jaay fëgg jaay. Hmm. daan jaay daan ambulance daan nangam ak nangam. jaay café xëyoo xëy gis ko ci plateau mu toog. xëyoo xëy gis ko mu dawal oto ngay gi promotion yëpp nga jaay ko. gis nga abaa tagat ñun c'est très important parce que dama lay ben affaire euh, man na dé exemple bu bu bu bu bu bu fla bu quoi. Mhm. comment nga. Mhm. fu ci jaar nañ fa ci ay ay ay chantier ba ci ay jaayu mad xaw ay comment nga légui lo bu la tagaté tay bis bo won rek niveau yow def dara. nga ko xam nga ko l'essentiel mooy na ko liggéey nang ko de façon digne mais moy tax ma lay wax gis nga université dañu fay soxla ben ku tekki mo xam kuy way la mo xam ben affairiste la mo xam ken il faut que ñu dem université wala ci école yi di jox xalé ay cours pas ay cours observation wala cours ay ay dissertation non mais jox len cours aduna man la diw influenceur nga euh, ñëpp xam nañ la parce que dañ lay gis mais nga xale yi fii laa jaar. lii laa def ak lii ak lii ak lii ak lii ak lii gis nga xale bi nga xam ni moo jàng ba yor ay diplôme ak yor ay ay kayitam ak yooyu war naa mën a xool ci yow xam ni à part yàng bi muy jàng. moom war na mën a am lu ko galvaniser moom war na mën a am loo xam daf koy jox courage. war na mën a bañ a yàkkamti war na mën a xam ne àdduna nànk nànk ko yor. moo tax il faut kilifa yi mooy ñi may wax waxoon naa ko ba may génne ca gaal ya. ñëpp attaqué ma dinaa ko waxaat il faut kilifa yi nga xam ne ñooy li réussite ñu génn di wax ak xale yi. waaw parce que ci yàkkamti gi yàkkamti ñun mooy dañoo yaakaar ni dañuy xëy rek yëpp sotti mais tey buñ nee xale yi faw àdduna nga jaar nii faw lii am faw lee am faw nga commencé ko ci commencement bi faw nga jël di économiser benn par benn ba am loo déparé wala nangam xale yi dinañ bàyyi bulow bàyyi yàq gi bàyyi yu bari bulow non wesh bulow pap pap shit mon ami yow loolu dal ñi ngay wax ne ñooy meilleure école xam nga loolu ñaan kilifa yi ngay wax nii ñooñ école war nañ ci bàyyiwaat xel la war a jàngee. en tout cas tamit nag ñun aussi nañ def métier conviction. cest dire que du damay jóg rek gis naa ni animation bi percé na damay dem nekk animateur métier da nga koy bëgg d'abord. Mhm. mu nekk loo gëm nga bëgg ko bu doxee baax na bu doxul baax na da nga jàpp ne yow lii yaa ko bëgg yaa ko taamu mais jékki-jékki avant animateur damay nekk animateur. moo ngi dox waaw. mais. boo yaa ngi dox xaaral dugg ci. loo poussé. am na ñu ci nekk ba bàyyi te. toog ci ñoom di loo nekk rek mu dox de en tout cas ñu ngi euh, encouragé pas bi euh, yàlla na yàlla niit. Hmm. yàlla na yàlla nit mais mais nag xale yëpp bàyyi xel ni euh, suba nga am alal ju bari taxul nga heureux. dem wuti alal taxul nga am ko. Hmm. am ko taxul nga heureux. te it yaakaar naa ni sa famille boo bëggee dimbali leen doo leen tegal benn coono. xale yi nañu bëgg tekki mais nañu tekki tekki boo xam ne du ñu sonal kenn duñ ci ñàkk seen bakken parce que tamit lépp tout. lépp sauf dee. sauf dee. jaajëf Aliou wuy ma incha allah damay gàmmu ji tey ci ngoon laay dem incha allah damay dem dañu ne burdu ba bu ah, tudd ma tudd Serigne Babacar nga xam ni Bakar rek dara man aram loo Kumba Thiam eh, moom lañ ma dippee nga may tàggu man mii pour yow mën naa ma ni paas ñëwul woon vendredi dama lay yëgal dama lay yëgal vendredi sa vendredi zéro damay dem dernier burdu